أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا ونشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal naa loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ba tey noo ngi ci suratul maida ci kàttanu borom bi ñuy jël tey ñeenti aaya aaya 20 21 22 23 ñeenti aaya yi nekk sunu kanam sunu borom mu nu ciy jàngal ñetti mbir juróomi mbir juróomi mbir yooyu sunu borom di ñu jàngal ci aaya yi bi ci njëkk mooy tasliyatu rasul bi ilaamihi taala bi xubsil yahud wa shiddati duafihim wa maradi qulubihim mbokki julit yi danañ jàng tey sunu borom subhanahu wa taala dalal xel gi mu dalal xel yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu borom dafa defal yonent bi loolu ñu naan tasliya mooy dalal xelam ci gaay yi ñuy def ak yi ñuy wax loolu tax ñi nekk fii ci jamono bi di diingat yonent yàlla muhammad ak di ko adressé ay kàddu yu ñaaw ak yu bon léeg-léeg olof yi wax ne lu bon dëkkul fu mu jëm waaye fa mu jógee foofu la mooy mbaaxam gaa yi wax yi ñuy wax yépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla dafa dalal xelam démb ku yàlla dalal xelam nag tey bu doomu aadama nekk fi di cëppi cëppi di wax dafay yàq kàddoom bu dee kuy bind la day yàq xalimaam bu dee kuy bind la day yàq xalimaamam ak ankram ndax kii ngay wax ak di ko adressé ay kàddu yàlla moo dalal xelam yàlla moo dalal xelam wax ko xubsul yahud mbanu yahud yi démb la yàlla waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam yahud yi ñu bon lañ yàlla jox ko ay xabaar yu wóor yu leer yu ne weng alxuraan wax ñu ko bu baax yonent yàlla muhammad leeralal ñu ko bu baax tey bu ñu fa bëggee toog di weddi wax yooyu moo tax li nu dal dal nu parce que yàlla moo ne yahud yi baaxuñ te duñu musa baax yàlla moo waxoon yonent bi ne yahud yi baaxuñ yàlla won ko seenu mbon ak seenu néewu ngëm ak seeni xol yu feebar yàlla bu waxee loolu yonent bi kon dëgg-dëgg ab jullit bu gëm yàlla gëm yonent yàlla muhammad dafa war a gëm ne li yàlla wax mooy dëgg munoo wax ne man gëm naa yàlla waaye li ma yàlla wax di ah déedéet loolu mun nekk soo gëmee yàlla yàlla lu mu la wax mooy dëgg lu mu la bàyyiloo nga war a bàyyi lu mu la jàppaloo da ngaa war a jàpp yàlla dalal xelu yonent bi ci information yi mu ko jox information yoo xam ne li ci yàlla wax yonent bi mooy mbonu yahuud yi la génne lépp ne ko weng teg ko ci kaw yàlla nëbbalul yahuud yi dara yàlla won yonent bi taraayu mbon gi nga xam ne moom la yahuud yi bon yàlla won yonent bi encore seen néewu ngëm seen ngëm yàlla yonjox bi mu yonjox waaye yàlla won yonent bi ne ko yahuud yi day seen xol yi dañoo feebar boroom xol bu feebar nag nekkul xol bi dafa feebar ni feebaru àdduna yi waaye seen xol yi feebar bi gën a rëy bi leen dal mooy ñàkk gëm yàlla képp koo xam ne gëmoo yàlla suñ lay adressé wax dañ laa war a wax boroom xol bu feebar gis nga li ngeen di gis nii ci dëkk bi ci ay caaxaan boroom xol yu feebar yi rek ngeen gis ñu koy def ci seen xol yi gëmul yàlla est-ce que xol su doomu aadama bu xolam bu fa yàlla nekkee rek jeex na waaye bu yàlla nekkul ci xolu nit moom ngeen di gis mu nekk ci ndànd fay fay gi nii mu ngeen gis koor jot mu bañ a woor julli jot mu bañ a julli waaw lu bon woote mu dem lu baax woote mu contre ko loolu mooy borom xol yu feebar yi jàngeen ci sotu baqara yàlla bi mu leen di misaal lan la wax fi qulubihim marad fa zaadahum llahu marad yàlla bi mu xoolee seen xol yi gis ne dañoo feebar yàlla nee na au lieu ma wéral ko waaye dama ko cee renforcer beneen feebar yokk ko ci ndax xam naa ni ñi duñu wér jàngeen yàlla mu ne ci alxuraan summa qasat qulubuhum ñii seen xol yee wow yàlla misaal na ko sax ne xol yi ñoo gën a wow xeer ndax am na ci xeer yoo xam ne dañuy jékki-jékki exploser ndox génn ci am na yoo xam ne dañuy jékki-jékki xotteeku ndox génn ci am yoo xam dañuy jékki-jékki di màbb nekk pënd ak poussière ndax ragal yàlla yàlla wax nañu ne am na nit ñoo xam ne xeer yi ñoo gën a nooy seeni xol lu tax ndax feebaru ñàkk ngëm yàlla moo nekk ci xol yooyu moo tax yonent alayhi salaatu wasalaam bi muy waxee mbaax di wane yaram boo xam ne mbaax a ci nekk dane ala inna fil jasadi mudga maa ngi leen di wax ne day am na benn suuxu yàpp ci biir yaram yaramu nit am na benn suux bu fa nekk maanaam mooy benn daggit su nit ki baax daggit boobu bu baaxee nit ki day baax waaye daggit boobu bu bonee nit kooku day alku bi ñu laajee yonent bi loolaan dane ala wa hiya al qalb mooy xol xol su baaxee nit day baax waaye bu xol bonee nit bon na loolu misaal yu ci ndaw yu ñu leen di jox mooy tey kenn ci ñun bu yónni woon doomam ne ko dawal nga ñëw damay ndogu doom ji dem ba gée mu ñëw boo koy xas danga naan ko sa tànk yu bon yi wala sa xol bu bon bi lu tax gaawoo sa tànk yu bon yi nga koy wala sa xol bu bon bi ba ngay tont xol bu bon nga koy wax soo fóotloo woon sa jabar yére bi satul sax nga sol ko gis normal loolu xol bu bon nga yor doo ko ne loxo yu bon nga yor xam nga lu tax mooy xol su nangoo rek liggéey bi ngay liggéeyloo nit ki da koy da koy nangu mais bu xol bañee waa ji lu ñu ko def loo du ko def mukk parce que xol bi moo bañ nit tamit pour mu jaamu yàlla xolam mooy nangu ñu ngeen gis ñi wooruñu seen xol yi ñoo bañ du question déedéet xol yi ñoo bañ yàlla moo fa nekkul moo tax bi leen yàlla ne woor la ñu non mun du ma woor am ñoo xam ne changé nañ tarixa bu yàgg waaw di allahu akbar démb laa démb démb dama démb dama jommi benn jigéen mu ne ma gis nga sama doom bi dinaa ko génn ci seen école bi dinaa ko yóbbu lan xaw ma lan les arts xaw ma ah ah ku waxtur bi Saint Lazare parce que ma ne ko lu tax mu ne parce que day ñëw di ma waar rek te ñooñu duñu waaraate ah daf ma sonal mënatuma sol tubéy mënatuma sol bodi yaay araam na araam na araam dinaa ko génne fii de yóbbu ko Saint Lazare mooy li ma mooy fi xulubihim marad feebar wala ay jullit yu bëri dañoo feebar yéen nag xam nga la ngeen xam ci ku feebar mooy ko hôpitalisé ñu koy seeti yéen loolu ngeen di wax feebar yàlla moom waxul loolu feebar xam nga yàlla kan la wax dafa feebar mooy kii ne cocc mën a daw fii 200 kilomètres ñëwaat dara dalu ko waaye buñ ko nekk ay julli mu lànk kookoo feebar ki feebar mooy koo xam ne buñ ko santee lu yàlla wax du ko def kookoo feebar waaw kookoo feebar ñu bari nag ci société bi tey dañoo feebar loolu dal yahud yee leen dal mooy xol yu feebar nit su xolam su ci yàlla duggee rek nga gis ko mu nangul yàlla képp ku ngeen gis suñ ko nee yàlla nee na mu lànk xam leen def feebar yàlla moo nekkul ci xol bi ku yàlla nekk ci xolam lu la yàlla wax danga koy def danga koy def kon loolooy lu njëkk tey lu ñuy jàng ci sunu dars mooy yàlla subhanahu wa taala dalal xel bu mu dalal xelu yonent bi ci génneel ko mbonu yahud yi ak seenu néewu ngëm ak seeni xol yu feebar ñaareel mooy faddaxal yahud bi kasfi l ayat an maxaasihim ma anbiyaihim danañ jàng tey yàlla gàcceel gi nga xam ne gàcceel na ko yahud yi lu tax yàlla wàcc ci ñun téere boo xam ne daf noo nettali yahud yi nan la nu meloon ak seeni yonent yi leen yàlla yónni woon rey rek rey yahud yi li ñu rey ci ay yonent kenn mënu ko lim ñoo rey Yahya ñoo rey Zakariya ñoo bëggoon rey Isa yàlla sauvé ko yóbbu ko kaw asmaan li ñu rey ci ay borom xam-xam ak nit yàlla kenn xamul nu mu toll mbon yi ñuy def crime yi ñu def ci àdduna gi kenn mënu ko takk kenn mënu ko wax ba mu jeex moo tax ba leen Hitler jàppee di leen dugal ci ay pour Hitler rek moo baaxoon ci ñoom ñoo ngi ñaan yàlla yàlla indiwaat ku mel ne Hitler seen kaw. Hitler waxoon na ko ne woon na yahudi bu ngeen leen fi bàyyi ñu yàqu àdduna bi mais nit ñi gëmuñu ko woon ñu dëgg la mbon yi ngeen di gis ci àdduna bi yëpp yahudi yi ko indi góor jigéen yi ngeen di gis génn yi ngeen di gis. carte gi ngeen di gis njaaloo bu métti bi adduna bi xoolal nit di sëy ak ndeyam kër goo xam ne amul jabar amul sër koo jot sëyal benn yahud dafa wax benn jullit yéen lu ñu wax ngeen ne araam na ku ñu wax ngeen ne araam na suñ ne jigéen bi mën naa sëy ak moom ngeen ne araam na su yéen da ngeen def lu leen neex da ngeen di jël ay jigéen ngeen ne kii dagan na ci man kii araam na ci man yéen loolu ngeen def yéen jullit yi jullit bi na ko waaw dëgg la kay pourtant yéen tam da ngeen koy def de mu ne ñun duñ koy defee jullit bi ne ko ñun dañoo ànd ak sunu xel ànd ak sunu borom ànd ak sunu yonent mu wàcceel ñu sharia boo xam dafa laab set bëgguñu tilim bëgguñu taq mu ne ko an sa yaay mu ne mu ngi ci biir mu ne wool ma ko mu ñëw mu ñëw toog mu ne an sa soxna mu ne mu ngi ci biir mu ne wool mu ñëw mu ne gis nga sunu diine mu lu mu wax mooy sa yaay ji araam na ci yow sa soxna bi dagan na comme ñun noonu la yow est-ce que sa sa xel nangu na sa yaay jur la ba pare nga sëy ak moom mbokk yi loolu kan moo koy def ci àddina bi lan mooy def loolu kan mooy sëy ak ndeyam rabu àll mala mala moo koy def da ngay yor léegi kuy ah muy tëbu yaay ji ko jur wala wala ginaar day tëbu fas day tëbu voilà te yaayam bi ko jur lay def loolu est-ce que nit ku nite dina def loolu sa yaay kon sunu diine ji moom moo ñëw ci kaw suuf pour doomu aadama civilisé pour doomu aadama nekk nit am xel def yëfu nit waaw nit ak nite na du benn nit dina nekk nit te nitewut lan mooy nite mooy nga xam yàlla xam sa diine xam li la fi indi su boobaa nite nga mën nga nekk nit nag yahud yi ñuy wax ay lan lañ ay nit lañ nasaraan yi ay lan lañ ay nit ñi ate ay lan lañ ay nit bouddhiste yi ay lan lañ ay nit mais nite wuñu ndax nit dafa war a xam boroomam soo xamee sa boroom ngay nitee looloo tax ñi ngeen di gis fii ñuy def lu islaam araamal yëpp ay nit lañ waaye nite wuñu lan mooy tax nag nit nite lan mooy tax nit nite mooy nga am diine soo amul diine doo nite ibnu ibnul qayim day wax ci mbirum jikko pour mu wax la mooy nit mu ne fa kullama faataka fi lxulq yafuutuka fi diin képp koo xam ne da ngay fekk diineem dafa manqué da ngay fekk jikkoom manqué képp koo gis mu am diine am na jikko ju baax ku am diine koo gis da ngay gis ci moom jikko bu rafet ku amul diine munoo fekk ci moom jikko gis ngeen loo ma tax seen politiciens yi amuñu diine moo tax amuñu jikko leen neex def weexuñ ñuuñuñ waaw benn politicien dafa romb benn waay ak otoom mu ne ko sa waay doo ma yóbbaale mu ne ko fii rek laa jëm fii fii fii ñu daw tuuti adaari accident bi waa ji ñëw tiim leen gars yi di leen génne di leen dugal ci mbuus yi kenn ko ñii dañoo dee mu ne deewuñ deewuñ dañuy politi politicien du lu mu la wax du dëgg dañuy dee deelu gis nga mu ne ah mu ne waa politicien la deewuñ de ñii deewuñ buñ demee ba léegi noonu la politicien mel lu tax parce que amul diine ku amul diine doo am jikko yàlla dafa gàcceel yahud yi lépp mbon gu ko yahud yi nëbboon yàlla dafa wàcc alxuraan ci ñun alxuraan bi leeralal nu loolu looloo tax boo jàngee alxuraan di nga xam bandi yëpp da nga leen di xam waaw détecteur ngay yor waaye toog ak bandi da ngay dégg soxal bi naan la attention attention attention innahu mujrim waaw lépp la alxuraan génnee alquran mooy téere bi nga xam ne moo ñëw ci kaw suuf di gàcceel yahud yi ak nasaraan yi lu tax lépp lu nu nëbboon suñu borom nee na ko weng ci biti waaye téere bee ñëw di ñu wax ñoom yahud yi nan lañ meloon ak seeni yonent mbokk yi ñi gën a baax ci kaw suuf mooy yonent yi ku toroxal yonent yi ndax dina fa bàyyi ñeneen ku jàpp yonent wala yaxya dañ koo dàq mu daw ndeysaan dugg ci benn garab benn ponkal yahud ñëw bu am xam-xam daal di wër garab gi trois fois mu ne mu ngi fii ci biir gars yi ne nañ ko génne mu ne déedéet da ngeen di dagg garab gi xam naa fi mu nekk da ngeen koy dagg da ngeen di indi si ngeen siyee ko ngeen siyee garab gi ñu indi si mu ñëw ba toll xam ne fi Yaxya làqatu mu ne dagg leen fii ñu dagg daal di koy daggaale ci digg bi mu daal dee ngadd bi daal di ànd ak benn côté bi daal daanu beneen genn wàll gi daal di des ci garab gi taxaw noonu lañ ko reyee Isaa moom gis ngeen nuñ ko bëggoon def délégation lañ def di ubbi bunt yi di dugg ba war a yegg dernière porte fi mu nekk waa ji nga xam ne moo ko doon feeñal parce que moom moo jokkoo woon ak ñoom ne leen bu fi nekkee dinaa leen ko wax complice bi bi mu ne xaar leen dernière porte mu war a dugg xool ndax mi ngi nii mu ne gaa yi egsi leen bi mu fi bunt bi dugg rek yàlla daal di koy misa masal isa daal di koy masa ci kanam bi isa mu génn doon wax gaa yi ñëw leen rek gaa yi njëkkante ko bàyyiwuñ ko mu wax parce que lu tax gaa yi visage u Isa lañ gis ci moom ñu dafa ne moom la ñu rey ko buñ ko rey ba pare nag fekk ba yàlla moom ubbi na fenêtre bi ci kanam daal di ubbi yëkkati Isa jëme ko kaw asamaan biñ ko rey ba pare ñu ne kan la ñu rey ñu ne Isa lañ rey ñu ne rey leen Isa kiñ àndaloon lañ rey ñii ne bu fekkee ne Isa lañ rey ana kiñ àndaloon kiñ doon woon Isa aywa bu dee kiñ àndaloon lañ rey ana Isa ñu daal di diviser wu mu bokk waaye yahudi yi ñoo bëggoon rey Isa mu leer leen te xoolal diggante yahud ak nasaraan tey ni nu mbokkoo ni nekkee ay xarit te yahudi ñoo ñëwoon pour rey Isa yooyu yëpp pexe yooyu kan moo ñu ko leeralal yàlla moo wone xabaar bi ba mu jeex tàkk walla mu ne reyuñu ko christifié wuñ ko bal yàlla moo ko nurule kenn ci ñoom ñu rey kooku yàlla daal di yëkkati isa jëme ko ci moom bal rafaahu llahu ilayhi yàlla ko yëkkati kon reyuñu ko du moom lañu rey du moom lañ def ci bant boobu yeew ko déedéet du moom du isa xabaar boobu mbokk yi fan ngeen ko jëlee kan moo nu ko xabaar sunu borom moo nu ko wàccal ci alxuraan leeralal nu ba mu leer mbonuk yahuud yi ak lan doon bëgg def ci Isa kon alxuraan téere bii mooy téere bi nga xam ne moo ñu wax yahuud yi ni ñu meloon ak seeni yonent te mooy rey ak dóor ak takk ak rek waaw gis ngeen niñ def Muusa rey lañ mënul ci moom waaye lu ne def nañ ko ko dem nañ sax ba ne ko Muusa dafa xuuxaan xam ngeen xuuxaan loolu yàllaa ko setal yàllaa ko bàyyi ba muy sangu xeer ba mu simmeeku woon teg ci ay yéreem yàlla ne xeer bi dawal ak yére yi xeer bi daw Muusa topp ko Muusa topp xeer bi xeer bi daw ba ci digg waa banu Israël fañ doon sangoo xeer bi taxaw mu ñëw fekk bant bi mu yoroon mu dóor ko yat bi ba yat ba xeer bi ba xeer bi tra am trace gaa yi nag daal di xool daal di koy xool ñu gis ne lañ ko doon tuumaal du loolu moo nekk ci moom parce que moom dafa gisoon ne banu Israël mbon giñ daan def bu ñuy sangu defi groupe yaramu neen nekk ci benn tefes ñoom ñëpp di paccax paccaxi moom loolu en tant que yonent xelam mënu ko woon nangu moo tax bu daan sangu day dem sori fu sori foo xam ne kenn du ko séen mu simmeeku sangu gaa yi nag bañ gisee Moussa moom du ànd ak ñoom du buy sangu day isolé wu ñu ne dafa feebar loolu alxuraan moo ñu ko wax wala moom sax Moussa wax na leen ko fa qaala Moussa li qawmihi ya qawmi lima tu'zuuna nii wa qad taalamuuna anni rasulullahi ilaykum Moussa keroog ba mu waxee mbokkam yi nitam ñi waaw yéen samay nit lu tax ngeen may lor te ngeen may wax ju bon te yéen xam ngeen ne man mii yonent yàlla la ñëw na ci beneen aaya yàlla mu ne xoolal gaa yi la ñu wax Muusa waaye fa barraahu llahu mimma qaalu ñu ne dafa xuuxaan yàlla setal ko yàlla ni mu ko setale mooy lan yàlla da ko bàyyi ba muy sangu te xeer yére bi ci xeer xeer bi daw ak yére yi xam ngeen ne xeer kese kese kese gu ne kàng su dawee dañ koo dawloo waaye xam ngeen ne xeer amul tànk amul bopp amul nopp bay daw kon dañ koo def lool mu ngoog kon loolu yàlla nu ko leeralal ñetteel mooy bayaan al asar asey allazi tarakahu izaatu nuqaba lil axbaari al kaziba al mawhila yahudi bokk na ci lu nu yàlla xabaar ci seeni mbir mooy ni ñuy tasee ci information ay fen ak ni ñuy defee ay montage gis ngeen léeg-léeg ngeen jékki-jékki ci Facebook bi wala YouTube ngeen jékki-jékki gis garab gu sujjóot wala wala ngeen jékki-jékki loolu la loolu la waa Sénégal jël temps yi quoi jékki-jékki rek daal def fenn montage quoi daal ne sëriñ bi mooy génn fii nit ñi di dee yooyu yahudi ñoo ko tas ci àdduna bi ay garab guy sujjóot ak ay jën buñ bind laa ilaha illallah ay xar buñ bind laa ilaha illallah ah loolu yahudi ya koy def ndeysaan di sayte julliti ak di def ay montage yoo xamante ne day doyadil islaam ak di tas fen ci àdduna mboole moo tax télécommunication bu ngeen di gis ci àddina bi li ci ëpp ci ay journal ay télé ay rajo ñi ko moom mooy yahudi yi dañoo ñuul nag wala ñu weex même bu fekkee ñu ñuul ñi la ñu nekk ci ginnaaw seen ginnaaw yahud yu weex yi la waaw pour lan pour fexe ba information yi jullit yi di jot loo xam ne jaaduwut jullit yi bu ñu xam lu xew ci àdduna bi moo tax gis nga bu ñuy xeex islam tey baatu terrorisme baat boobu léegi la beesan mais démb lan lañ doon wax fondamentalisme loolu la rajo yi njëkk ak télé yi fondamentaliste fondamentaliste ñu jékki-jékki islamiste ñu jékki-jékki terrorisme tey benn baat moo xew mooy jihadiste gis nga maanaam année yu nekk cinq ans yu nekk dañuy indi baat bu bees jihadiste booy bi ci jihadiste yi la bokk te tikkat yooyu kuñ ko takkal rek pare nga xam nga lu tax man la pare nga mooy pour ñu tëj la ci kaso wala ñu rey la du dara mën nañu fekk fi nga toog ñu dóor la bal suñu nee la la ñu ne jihadiste la xam nga léegi lu ñuy xew mooy jël suuli rek say mbokk dañ naan nañ ko suuli jeex na amul benn droit de l'homme wala droit droit droit boo am parce que lan la islamiste la parce que lan la fondamentaliste la parce que lan la islamiste parce que lan la jihadiste ñooñu amuñu avocat ci àdduna te baat yi may wax yëpp yahudi ak nasaraan yi ñoo koy indi pour di ko xeexee jullit yi waaw baat bii ma leen di wax tey jii moo xew mooy jihadisme parce que démb sax seen président bi muy def lan ah bi muy def ah dialogue bi moom la doon utiliser baat boobu la doon utiliser naan gaay ak seen tube yu cëkk yi ak seen sikkim yi may wax bu ñuy julli naan dañuy def nit seen loxo ci kaw ñun kenn duñu coloniser deux fois ah kan moo ñu coloniser kan moo ñëw pour coloniser nu kan la kan moo ñëw pour coloniser ñu première fois ak deuxième fois kan la loolu kenn ñeemu ko wax parce que wala fi nee nañ ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa waaw islaam nag moom fi mu nekkoon lay nekk du fi jóge ba yowmal qiyaamati ku jàpp ne jullit ñi mën nga leen a tiital wala mën nga leen a xoqatal wala mën nga leen a tëj wala nga rey leen ba duñ jaamu yàlla da ngay nax sa bopp te ku fi ñëw di nga fi jóge bàyyi fi diine ji bu fekkoon diine ji buñ ko xeexee mu dem kon diine ji du génn màkk bi yàlla wàccee islaam ci kaw suuf ba tey gaa yaa ngi koy xeex waaw ba yàlla bindee diine lislaam wàcce ko ci kaw suuf ba fii ñu toog gaa yaa ngi koy xeex ndax fay na ah ndax wàññeeku na bal sax ñi ko doon xeex tey ñoo ñëw di tuub démb laa barki démb laa gis ci facebook bi miis lan miisu fan ban dëkk ci dëkk tubaab bi seen miis bi dafa tuub riche très bien gis naa ko ci facebook bi muy muy tudd baatu seede yi mu ngoog mbir mi ku mu leer ci yow rek da ngay tuub xaw ma ku mu leerul nag waaye mbir mi fii sax ñu nekk ku mu leer ci yow da nga bàyyi caaxaan jaamu yàlla est-ce que gis ngeen weeru démb bi doom bu am ñetti at laa ñëw mu ne ma papa leeru ndu nara ah bébé trois ans di gis weer moom weer woowu xanaa dafa kaamil waxe gaa yi ne daa kaamil ah daa kaamil yal nañu yàlla woon dëgg moo sëgal ñu topp kon tas ay fen ci kaw suuf loolu mooy pexe yahudi ak nasaraan yi jël ay fen chaque jour yàq islam wane wane wane wane yoo xam ne tas ko ci noppi nit ñi jël benn fen di ko tas di ko tas ba nit ñi gëm ne fen boobu dëgg la xam ngeen ne almaa bi bokkoon nasa xabaar yi mu njëkk a tas mooy américains yi ñu ne ñun dem nañ ci kaw weer wi ah samp suñ drapeau loolu léegi léegi la nit ñi doo ko xam ne du dëgg pourquoi nan lañ ko trouvé ah parce que drapeau bañ fa sampoon da doon da doon folote tey ji la gaa yi trouvé ne ci kaw amul amul ngelaw ba drapeau di fa naaw loolu léegi ak léegi ñaata at la bi américains yi ne dem nañ ci weer wi ba samp seen drapeau ak léegi ñaata at la xoolal nit ñi léegi léegi nii laa wax la ñuy doog a trouvé ne ndeke du dëgg ndax kaw weer wi amul ngelaw waaw yàlla fi mu bind doomu aadama mën fi dund mooy fii nu nekk biir géej amul oxygène kaw asamaan amul oxygène fii rek ñu nekk lañu yàlla defal espace boo xam ne ñun fii lañu mën a dund ku jóg fii ci ñun dugg biir géej ne dafay dund day dee soo fi jógee ki da daw ka asamaan ne da nga fay dund da nga fay dee moo tax gis nga gars yi bu ñuy dem sax sous-marin yi ci biir géej gi lu ñuy lu ñuy yóbbaale dañu yóbbaale ngelaw moom la ñuy boot ñi dem ci kaw asamaan lu ñuy yóbbaale ngelaw gis nga bañ nañ ko bu ñu demee dañuy naaw dañuy plané mel ne ay physique parce que foofu mënuñu fa dox amul acier bu leen téye ci suuf fii la yàlla def acier bi fii la yàlla def ngelaw li fii lañ mën a dund moo tax yàlla mu ne minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum fii ci kaw suuf laa tibb bind leen fii ngeen di nekk fii ngeen di dee bu ngeen dee fii lañ leen di denc su ma leen di dekkil yowmal qiyaam fii laa leen di génnee fii la rek kon xabaar yu bari yu ñuy jox nanu xam ne xabaar yi ay fen la waaw wa in jaakum fasiqin bi nabain fatabayyanu yàlla nee na su ngeen yëgatee xabaar information balaa ngeen koy gëm na ngeen ko vérifier ñeenteel mooy bayaanu sunanullahi taala min annahu la yaxlu zaman wala makan min abdi salih taqumu bihi lxujja ala nnas aduna ni ko yàlla bindee boobu ba léegi lii sunna yàlla ci kaw suuf mooy adduna bi fu nu nekk waxtu wu nekk yàlla dina fi def nit ku baax koo xam ne dina leeralal nit ñi diine yàlla même bu yonant amatul yàlla dina bàyyeeg nit ñi nit ñu baax ñoo xam ne du ñu ragal lenn danañu leeral nit ñi seen diine ba lu leen luñ ci góobe gar ko noonu la yàlla bindee àdduna bi yonent yi demee ak léegi da ngay fekk àdduna bi ay nit ñu baax nekk fi xeex ba li fi yonent yi nekkoon nit ñi mën ko dund loolu nag zaman ak makaan place la ak barab jaamu yàlla bu baax boo xam ne day taxaw yor lay wu leer wu ne weng ku wax mu dóor la dalil pour indil nit ñi hujja mooy lay weer pour ñu jaamu yàlla loolu du mus a jeex ci kaw suuf moo tax bokk na ci sunna ñu ne téeméeri at yu nekk yàlla subhanahu wa taala day tàggat benn mujaddid kuy beesalaat li ñu yàq loolu day am nit ñi yàq yàq yàq yàlla indi kenn mu defar kooku jóge fii nit ñi dundaat normal jékki-jékki yàqaat yàlla indi mu defar defaraat waaw lu nit ñi yàq mu indi ko defaraat ko loolu day am jamono bu nekk noonu la ñuy mel noonu la ñuy mel noonu la ñuy mel noonu la ñuy mel ba keroog bu yàlla di indi imaamul mahdi al muntazar waaw mooy ki mujjee ñëw nag ci ñuy baaxal ndax après moom àdduna day tukki parce que moom ak Isa ñooy ànd Isa wàccaat ñu ànd rey dajjal àdduna daal di tukki moo tax seen masih yi ngeen di dégg fii ak mahdi yi ngeen di dégg fii yëpp ay photocopie la du original xam ngeen photocopie ah xam ngeen photocopie waaw ay photocopie la du original original bi ñëwagul waxuma ko de yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi moo ne al mahdiyu minni mahdi ci man lay bokk nan la bokkeeg yonent bi yonent bi dafa am ñaari sët ku tudd Asan ak Useyn ñoom ñaar ñëpp dañ leen rey kenn ki dañoo dagg baat bi kenn ki dañ ko posone ñoom ngeen di gis nit ñi bu ñu amee doom ñaari góor ñu ne tuddee naa ko Ousseynou ak Assane lan moo tax ku am ñaari doom yu góor nga tuddee ko Ousseynou ak Assane lu tax dañ naan ñooñu ay ay seex lañ ñooñu duñu ay seex dégg na mbokk yi Adama ak Awa sax duñu ay seex Adama ak Awa bi ñoo ne boo amee doom bu góor am doom bu jigéen nga ni tuddee naa ko Adama ak Awa pourquoi ñu ne ay seex lañ ñoom indaale nañ seen tur indaale wuñ benn tur Adama ak Awa duñu ay seex Ousseynou ak Assane duñu ay seex leer na Adama la yàlla njëkk bind bàyyi ko aljanna lu yàgg ba mu neex ko moom yàlla yàlla bàyyi ko ba muy nelaw yàlla daal di ñëw ci faaru gauche bi Adama daal di damm faaru gauche bi xotti ko daal di fay génne Hawa Hawa li muy tekki mooy ku ñu génne ci luy dund wala Hawa di tekki après yàlla mu ne ko kii mooy sa soxna uskun anta wa zawjuka aljanna jàppal ci loxo bi ngeen dem dëkk aljanna wa kula minha ragadan xaysu chituma wala taqaraba hazihi sajara fa takuna min alzalimin lekk leen fa lu leen neex waaye am na fa benn garab mooy garab gii ñu ne ah yàlla nee na bu leen ko laal bu leen ko jege kon duñu ay seex ok Ousseynou ak Assane Assane mooy mag Ousseynou mooy rakk ji almahdi fan la bokk doomu Assane la sëtu Assane lay doon lu tax Assane dafa waroon falu bokk ci ñuy doon xilaafa yonent bi am benn waay bu ko opposé ci julli bu tudd Muawiya Assane wóor ko ne leer naññ ci moom ne bu jàkkaarloog waa jooju jullit yu bari dañuy dee dañuy xeex ñaari kuréelu jullit la ñi nekk ni ñi nekk nii moom moom moom mbir mi gaa ndax moom la fi yonent bi bàyyi mooy maa mooy sëtu yonent bi kon moo fi war a nekk mu xam ne bu xeexeeg waa ji jullit yu bari dañuy dee mu ne man bàyyi naa ko mu nekk njiitu jullit yi wàcce naa sama bopp boroom xam-xam yi nee nañ loolu mu wàcce woon boppam pour bañ a falu looloo tax yàlla fay ko al mahdi bokk ci ay sëtam mahdi nan lay tudd muhammad lay tudd yaayam nan lay tudd amina baayam nan lay tudd abdallah sëtu kan lay nekk sëtu muhammad yéen seen mahdi yi dañoo ñuul wala dañoo weex ah yonent bi nee na arab la sama sët la sëtu asan la asan nu mel muhammad lay tudd seen mahdi yi nuñ tudd seen ya yaayam amina lay tudd seen mahdi bi yaayam nu mu tudd ah du ngeen tontu wala da ngeen a ragal ñu ñu wéy kan lan yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal lan yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko ab jullit léeg-léeg mu gis dëgg léeg-léeg mu gis dëgg mu xam ne dëgg gaa ngi nii waaye seytaane mooy frenkulaay ci xolam ba mu bañ a jël dëgg googu léeg-léeg mu gis caaxaan mu leer ko ne man ci caaxaan laa nekk xam na ko waaye saytaane mooy frenkulaay sa kaw ba caaxaan boobu doo ci mën a génne moo tax bokkoon ci ñaani yonent allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna tibaa yàlla yàlla ngi woon dëgg nga wërsëgal ñu topp ko julli dafa da ñaan ñaan boobu lu bari yow yàlla yàlla ngi woon dëgg nga wërsëgal ñu ñu xam ne dëgg gi mooy dëgg nga may ñu ñu topp yàlla nag ñu won caaxaan ak neen nga may ñu ñu xam ne lii caaxaan la ak neen nga wërsëgal ñu sori ko lan lañ ko yàlla defal kon mbokk yi ci tënk bu gaaw boo xam ne ci la ñuy dugg ci sunuy aaya tey mooy ñetti ñeenti aaya yi ñu war a jël أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعل وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت آدم من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتد ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أنعم الله عليهما الدخول عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين سن برام نه فاتلي كولن دم وإذ قال بم وخي موسى يننت يالا موسى ñan la doon waxal li qawmihi nitam ya mu ne leen yaa qawmi e yéen samay nit ngalawaay uzkuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewalu yàlla aleykum ci yéen mbokk yi Moussa alayhi salaam moo daan waxtaan ak yahud yi ñoom ñi nga xam ne moom la yàlla may moom la yàlla tànn mu nekk seen yonent yàlla di ñu nettali Moussa ba mu dajeeg nitam ya lan la leen wax mu ne Moussa nee na nitam ya uzkuru fàttaliku leen tudd leen ni'matallahi aleykum xéewal yi nga xam ne yàlla ko wàcce jëme ko ci yéen mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala xéewal yi may doomu aadama yi xéewal yi may nit ñi kenn mënu koo takk moo tax yàlla wax na ci alquran wa in ta'uddu ni'matallahi la toxsuha bu ngeen doon lim su fekkoon ne géej gi daala garab yi nekk ay xalima ñuy wàññ di lim xéewal yi ñu yàlla defal géej gi dina fer xalima yi dana dammatoo xéewal yàlla lay des waaye xam nga nit ñi seen gàtt-gàtt ngëm yàlla ak gis-gis léeg-léeg moo leen di bloqué ñu am ay blocage yoo xam ne dañuy jàpp ne xéewal mooy xaalis ku amul xaalis rek boo ko ne ça va mu ne non sénégalaisement quoi non moom affaire yi da ngay maar quoi affaire yi dara bougé wul quoi ak aka bëri lu bougé yaa ngi di bougé nga ni dara bougé wul doomu aadama bu amul rek da yaakaar ne yàlla may ko dara ci xéewal am am rek lay xool mooy xaalis ñun daal jàpp nañ ne soo déggee sax ñu ne benn waaye yàlla defal na ko xéewal ñu ne kon de am na gars yi pourtant yàlla lim ni may ci xéewal mun nu ko lim wallahi alazim ndax dafa am xéewal yoo xam ne da nga koy gis am yoo xam ne doo ko gis li ëpp ci nit ñi nag wa qalilun min annas man yudriku tilka alhaqiqa vérité boobu dëgg boobu ñu bëri ci nit ñi gisuñu ko dañ ko ignoré réere ko jàpp ne daal xéewal gu yàlla def mooy xaalis baa ngi sama poos rek waaw tey moom wax dëgg yàlla wàcce naa cinquante mille tey kay moom xéewal booy kay xéewal gi moom wala ngaan na ndeysaan néew na ci ñun ku sant yàlla ci xéewalam yi la yàlla may te xéewal mbokk yi du jóge fenn fu dul ci yàlla wa ma bikum min ni'matin fa min allah xéewal gu ngeen mën a am bàyyeewukul ci sàmba bàyyeewukul ci demba mu ngi bàyyeekoo ci yàlla waaye lii problème mooy dafa néew ci nit ñi ñuy sant yàlla moo tax Muusa message am bi mu njëkk a jàllale ci bani Israil mooy fazkuru ni'matallah waay waay fàttaliku leen xéewal yi leen yàlla defal soo yëgee ne yàlla xéewal na la rek aha di nga mën a reconnaître ne léegi man am naa buur boo xam ne wallahi am na lu ma defal kon xaar ma delloo ko njukkal gaay ñun ñi ne ci biir jumaa ji nanu lim xéewal yi ñu yàlla defal fii nu toog bu ñu buusee acca nañ tàmbalee ci nopp li may wax nii dafa neex ci yéen wala dafa naqari dafa neex xam ngeen lu tax mu neex parce que da ngeen koy dégg wala est-ce que bu ngeen ko déggul woon dina neex léegi nag déglu googu ngeen di dégg kan moonu may ñu dégg ku defar nopp bi ba mu mën a dégg yenn saa nga gis koo xam ne nopp bi dafa am problème mënatul dégg day dem jëndi écouteur pour dégg wala écouteur boo xam ne léegi ku wax rek mu dégg ñaata lay jaar ah cher na dem bu fekkee ñaari nopp yee yàqu nga dem ut ñaar yëpp instant bi ñu toog fii ci biir jumaa ji kan moo yor écouteur boobu kan ci ñun moo ko jëndi pourtant yaa ngi dégg de dégg bi ngay dégg loo ci fay yàlla ñaata nga jëndee dégg bi kenn ci ñun dégg bi muy dégg ndax julli na ñaar ràkk na yow yàlla maa ngi lay sant ndax boobu ba léegi fayuma facture pour dégg waaw gars yi dañuy wax rek may dégg kan moo sant yàlla ci dégg tëbal loolu ñëwal ci bët ku sant yàlla ci li muy xool bët comme ni ngay gisee nopp bu yàqu noonu ngay gisee bët yu yàqu gars yi ku sa bët yàqu après ndax di nga amaat bët fooy amewaat bët tubaab bi mënutuñ defar bët de bët bi yàlla may la su yàqoo rek dem na pare nga ndeysaan bu nu la yóbboon ñi gën a garaaw ci àdduna bi ñu mën a faj bët pare nga xam nga lu ñu lay defal benn affaire rek bu weex tal am benn ñuul ñuul ci dëgg bi mu ne nii waaye affaire bi du def du kii de nii rek lay def su koy waa ji di ko masqué woo nag gars yi dafa ne day gis fekk bët bi du xef waaye lañ ko cee masqué ah ndeysaan waaye dootul gisati de gaa yi xéewalu bët ku ci sant yàlla fii ñu teg ah kenn sant ku ci yàlla xéewalu wax nag gémmiñ gi wax bi muy wax ak jëriñ bi muy jëriñ lekk yeeg allahu akbar kan moo ci sant yàlla gaa yi tànk yi nag gaa yi loxo yi nag gaa yi biir bi nag ak biir bi li ciy dugg ak suy génn allahu akbar billaay boo reeroon ñetti ginaar nga ndogu ba suur naan ji ah daa toog nga toog ba caag affaire yi ne gërr nga toogaat mu ne gërr nga toogaat mu ne gërr nga jóg am foo dugg yow kenn yàlla ne ginaar yi ne leen tekk leen ci biir bu leen génn nga def effort def effort def effort yàlla mu ne bul génn laa wax nel teg soo génnee foofu boo solee sa tubéy génn looy wax mama mu ne ah ni ko appel 18 waaw da ngeen a xam 18 xanaa 18 mooy lan sapeur ndeysaan allahu akbar kon xoolal yooyu yëpp yàlla defal la ko bu doon boobu ba léegi bi nga juddoog léegi saa yoo bëggee dem wanag wala nga bëgg a dem toilette ñu yóbbu la hôpital ah wala saa yoo lekkee balaa muy rees ñu yóbbu la pharmacie allahu akbar léegi gis ku lekk ba gër jéeg-jéeg affaire yi na gër merde merde merde allahu akbar au lieu mu ne ah, gis nga même loolu kii def nii tisóoli boobu mu def dafa am ñaari gaz yu mbëkkante te su delloo ci moom bopp bi dafay am problème moo tax mu daal di koy tisóoli gaz carbonique bi génn oxygène bi daal di dugg moo tax yoon bi ne boo tisóolee lay wax alhamdulillah parce que gaz bi génn na yenn saa yi nga gis koo xam dafa bëgg a génn mu naan affaire bi ne tàkk ci biir muy gàññ ne du génn kañ lay waaj ni normal affaire bi ne tës rek nga dégg alhamdulillah ndeysaan nga dégg ñu ne ko yarhamukallah après moom tam mu ne yaghfir allahu lana wa lakum yahudi dañ daan bëgg a tis bëgg a am ñaanu yonent bi su ñëwee ci yonent bi xam nañ ne ku tissooli yonent bi da lay ñaanal su ñëwee ñu tissooli tissooli lu yonent bi ne leen yahdikumullah wa yuslih baalakum al na leen yàlla jubal defar seen mbir waaw al na leen yàlla jubal ñaar la de yaghfir allahu lana wa lakum ak yahdikumullah wa yuslih baalakum yahudi la ko yonent bi daan wax boobu noonu riwaaya bu mujj boobu ma wax mbokki jullit yi Moussa jàkkaarloo nag ay nitam ne leen yaa qawm yéen samay nit ngalawaay fàttaliku leen xéewal bi leen yàlla defal gars yi léegi léegi man ak yéen fii ci jàkka ji xéewal yooyu ñu wax nii kan ci ñun moo ci sant yàlla te xéewal yi gën a rëy mooy yii ma lim ci balaa ngay xam ne nopp neex dégg neex nga ñàkk ko ci balaa ngay xam ne gis amul loo ko mën a jënde ci àdduna nga ñàkk nga ñàkk lan nga ñàkk bët ci bala ngay xam ne wax a neex nga muuma benn seconde ci bala ngay xam ne tànk neex tànk bi metti dama rek nga fubbali ñu tàkkale la sa sëbi bi simmeeku sawaay dootoo mën a dox gaa yi di la jàppoo allahu akbar ah une semaine saa yi da ngay toog rek ba bëggee dem duus sax ñu indi la pot bi ci biir néeg bi ngaan temps yi kay affaire yi dafa cóol allahu akbar waa gis nga de waa bi la yàlla bàyyee tànk bi fu ne nga dem waaw daw fu nekk fu ne nga dugg fa wala yenn saa yàlla teg la dara pour nga dellu siwaat waaw léegi nag imagine leen cër cër yi nekk ci biir yaram cër yi balaa ngeen doon xam doomu aadama santul yàlla ngeen dem hôpital ngeen dugg yenn bureau yi ñu wal leen yax doomu aadama jëmm doomu aadama yax yi kese ni ko yàlla defaree yax yi balaa siddit yee ñëw ak yàpp yi sa të- të- të- të- siddit yi ni ñu wëree yaram bi mel ne ay wëñ yoo xam ne dañ koo laxas bopp bi rek ak ngaam geeg suñ la ko wanoon kese moom da ngay daw doo taxaw xoolal yàlla bi mu defee yax yi ba pare ba defar siddit yi ba daf ci yàpp dafay ndiwaat benn der buy tax doomu aadama sax rafet mu daal di koy def ci kaw kan mooy sant yàlla ci loolu est-ce que sant nañ yàlla ci loolu ah benn waaye nee na ma kanam rek kanam li fa nekk nit mënu ci sant yàlla bët ndox mi ci nekk bokkul ak ndox mi nekk ci bakkan bokkul ak ndox mi nekk ci gémmiñ bokkul ak ndox mi nekk ci nopp ñeenti ndox yi benn benn nuroo ci ak moromam te boo ci amul boo ci amul uti ko
الصباح والمساء
boo ci amul uti ko wala da ngay xëy yenn saa yi rek ndox mi ci bakkan manqué nga dem jënd mentelat ubbi di ñuux waaw gis nga de ah wala pourtant ya li fa yàlla def da nga yaakaaroon ne loolu dafa salte baaxul waru fa nekk am na ci ñun ñoo xam ne bu leen yàlla doon tàgg ne leen dama lay defal njënd xit daal de moo ko defal de te xamoo ne ñendaxit moo tax ngay noyyi gis nga ñendaxit bu amoon ci sa bakkan yii xam nga nu muy mel day mel ne buntu yooyu ngeen gis ñu koy tëj comme yee genre yee xam ne bu ñu koy yëkkati amul graisse koñ bi yëpp dañuy xam ne moo doo ngi wàcc su xëy see ñu xam ne nan la nit ñi di xamee ne xëy si na bunt bi mais bu ko bu ci defee graisse el yi kenn du yëg ne waajaa ngi fi ci koñ bi mun na toog deux mois kenn du yëg ne waajaa ngi fi mais cëy bu manqué graisse loolu moo tax nag ngay noyyi yàlla la ko fa defal boo xëccee ngelaw li mu dem dugg ci sa poumon yi booy génn mu dem kenn du yëg waaye bu fa amuloon gis nga affaire boobu bu tagee rek nga di ko waaj naan lan la ma naan ma soj waaw nañ ma jëndal man la tawaay gis nga allahu akbar am na benn borom xam bu bind benn téere tudd ko al insaan zalika al maxluuq al majhul al insaan zalika al maxluuq al majhul doomu aadama mooy mbindeef moo xam ne dañ koo réere kenn xamu ko lii ma leen wax nii ci yaramu doomu aadama tey boo demee ci santé da ngay gis koo xam ne lan la jàng moom lan la spécialisé lan la spécialisé lan bët kese bët kese ñaataat la jàng bët nga ñëw keneen ne déedéet man wax dëgg yàlla xaw ma bët man nopp rek laa jàngi woon nga ñëw kii ne man bëñ rek laa jàng bëñ nga ñëw kii ne man der rek laa jàng nga ñëw kii ne man yax laa jàng nga ñëw ne kii ne man deret laa jàng ñoo ñëpp boo leen boole woon ñaata nit ñaata lañ ah wala yàlla moom moo ko defal boppam moom kenn amul benn hôpital ay ana waa borom bët yi nu ñu leen di woowe borom nopp yi nu ñu leen di woowe xamuleen ko borom yax yi nu ñu leen di woowe borom der yi deret ah ah xoolal rek ku nekk de waa ji ne man banque sanguine laa nekk ci deret ya laa nekk ki ne man maa ngi fa ñuy fajee bopp fa ñuy fajee yax ya ki ne maa ngi fa ñuy fajee bët yi ki ne maa ngi ca bëj ya ah xoolal ñi ñëpp bokkuñu te yàlla moom moo ko def allahu akbar moo tax bi yàlla wax mbirum mbirum bind ah man yàlla maa leen bind ci qad aflaha almuminuun bi aaya bi di jeex lan la yàlla wax fa tabaraka allahu ahsana alxaaliqin allahu akbar nga gis liir bi nu li ko sos doomu aadama li ko sos bi muy sosu man yiw bi muy jógee ci ku góor ki dem ci ku jigéen ah dañuy wër comme nit ñi ni ñuy wëree kaaba gi gis ngeen kaaba gi ni ngeen gisee gars yi di ko wër noonu la man yi bi di wëree ci ruxumu ku jigéen gi di wër nii ñoom ñëpp waa ji seeg ndaw si man yi bi dugg day wër dafa def ay daggit di wër gis ngeen noonu ngeen gisee gars yi di wër kaaba gi ni ñu bëree noonu noonu la man yi bi bëree man yi boobu li muy bari bari bari lu ëpp yenn saa yi benn yàlla benn la yàlla di jël wala mu jël ñaar wala mu jël ñett wala tuuti accident am nga gis kat nga dégg ñu ne si femme bi kat gos la am te ay milliards la ay milliards la ñooy wër yàlla jël benn imaginal milliards yooyu yëpp bu duggoon kon ndaw si day dee ay yàlla subhanahu wa taala kan moo dugal benn bu bu benn boobu di dugg bu ko bunt bi keppee mu dagg ñaari dagg di dugg mu nekk ñaari seex yu nuroo su fekkee ñaar a dugandoo mu nekk ñaari seex yu nuroo wut gis nga kan moo ko dugal te lu doy waar mooy bu amee lu dugg rek yeneen yëpp yàqu nañ ana waa génn leen bokkatu leen yéen kan moo ko dugal te foofu ñuy dugg yàlla lal na ko ba préparé ko ndeysaan lal bi mi ngi toog di xaar gan yi ñëw pour tëdd bu gan yi tëddee rek ana waa ñeneen ñi dem leen jël nañ ñaari gan tey tey médecin bi ñaari gaa rek la recevoir ana waa yéen dem leen ngeen ñibbi ba suba loolu kan moo ko def ku dul yàlla kan la ñun ñëpp noonu la ñu juddoo ñun ñi toog fi yëpp bi ko yàlla di def kan moo doon dimbali yàlla kan moo nekkoon ci biir foofu di recevoir affaire yi di leen dugal toog di leen garder kan la wala yàlla di wax fal yanzurul insaanu min ma xuliq nit na xool ci lan laa ko bind soo répété soo nekkee magum jëmm nekk ponkal ma wax la yàlla man yàlla man la jullil nga lànk xo da ngaa xamul xooloo fi ma jaar ak yow fal yanzurul insaan xuliqa min maa in daafiq maa ngi la bind ci ndox moo xam ne feesul xottu gerte salte ba ku mu taq sa yaram boo xëyee suba sangu bu taqee sa yére nga fóoti ko wala wala ndox moomu yàlla nee na moom laa jël ma dugal ko fu am sécurité fa jaalnaahu fi qararin makin ila qadrin maalum fa qadarna fa nicma alqadirun allahu akbar keroog buñ la nee sa soxna am na doom nga daw ñëw wàcc dugg ci maternité bi nga ñëw fekk soxna si toog nee nga xool ko mu xool la nga romb ko daal di ne ana liir bi mu ne mu ngi nii nga jël ko allah nga xool ko gis lépp fa qaddarna fa ni'ma alqadirun allahu akbar est ce que sant nañ yàlla mbokk yi loolu moo tax Moussa ba mu dajeeg nit ñi li mu leen njëkk a wax mooy fàttaliku leen yàlla li mu leen defal ci ay xéewal na ngeen bàyyi rek dafa ne xéewal mooy ginaar gu ñor moo ci gën a tuuti lekk ba suur mooy xéewal yi gën a néew yàlla may nit mais ñun foofu la ñuy gisee ne mooy xéewal xéewal mooy am xaalis foofu mooy li gën a mujj balaa ngay xam ne xéewal yi la yàlla may génnal nga taxaw ci mbedd mi taxawal ci mbedd mi rek léegi nga gis koo tane yaa ngi gis léegi ku yor bant romb la ñu jàpp ci loxo bi yaa ngi dox léegi kuy raam romb la yaa ngi wax léegi ku muuma romb la yaa ngi dégg léegi am tëx romb la yaa ngi liggéey ñaata gaa yi ñooy semé ah gaa yi ñaata ñaata la ñi semé ñaata lañ ci Sénégal yooyu yaa ngi xëy ñu lay fay salaire soixante quinze mille nga naan non xam nga dëkk bi doxut yow mi yaa doxut dëkk bi kaa ngi dox yow mi yaa doxut montre yi sax ñi ngi dox ñi doxul kay dañ leen di yóbbu dëkk ba fii nii ngeen jëlee oto ngeen romb rii diis am na benn dëkk ñi doxut foofu lañ leen di dugal ah am na benn jàkka ju nekk ci wetu dëkk boobu jàkka jaa ngi tudd sang suul ku doxul rek fa lañ la jëwee wala kon dëkk baa ngi dox nañ leen sant yàlla nañ leen sant yàlla wallahi bu nu santoon yàlla rek yàlla daal di ñuy defal xéewal waaw moo tax Moussa fàttali ñii waaw ne leen yaa qawmi yéen samay nit uskuru nicmatallahi alaykum fàttaliku leen ngeen tudd wax ak seen làmmiñ yi xéewal yi leen yàlla defal waaw waaw bokk na ci is jaala fiikum anbiya mbooleem genn wàll yonent yëpp ci yéen waa banu israil la ko yàlla génne kon kay war ngeen sant yàlla yéen bu ngeen bu leen yàlla bindee bind nit ñi ba pare yàlla jël leen jox leen genn wàll yonent yi yëpp yàlla yónni ko ci ñeen kon kay yéen war ngeen sant yàlla wala war leen sant ah mbokk yi ab xeet bu ñu amee benn yonent rek war nañ sant yàlla xeet benn yonent rek waxuma la nag ngeen am ci ay téeméeri téeméeri téeméer nga war ngeen sant yàlla nit ñi li ñuy bari bari bari banu Israël ñoo ëpp yonent waaye ñàkk gis bi ñu ñàkk gis loolu moo tax Moussa ji leen fàttali da ngeen fàttaliku xéewal yi leen yàlla defal li ci njëkk mooy yàlla def na ci yéen ay yonent kon ku yàlla subhanahu wa taala xéewal dara yàlla bëgg na xéewal googu mu la defal Moussa ci ñoom la bokk Haarun ak yeneen yonent yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala moom moo leen ko jagleel kon fàttaliku leen loolu bu leen ko sëgg waaw li gën a bon ci nit mooy yàlla defal xéew bañ la defal xéewal nga yàlla defal la xéewal nga bañ koo sant te tey li gën a doy waar mooy da ngay gis nit ñi danañ sant seen moroom waaw sant seen moroom man sax gis naa am na fi ñoo xam ne bu ñuy sant dañuy fecc boo waxee li nga ñu ne danoo kontaan dañuy sant diw billaay bu doon fecc dagan na nga feccal yàlla kon ah ndax yàlla lim la defal kenn defalu la kon boo kontaanee bay fecc di pooj poojalal yàlla benn paa nee na ma dama dugg ci kaaba gi rek daal di pooj ma ne ko pooj mu ne waaw ma ne ko ah góor gi li nga def garaaw na de mu ne ma damaa kontaan ma dama ne yàlla sama pooj bi tey foog ma feccal la ma ne ko mu noon nga ko defee neneen nag a pooj koomu koy soxlawuñ fa pooj ay xam nga rek Sénégal moom dañoo féex ñoom dañoo jàpp ne niñ ko sentiree rek noonu lañ ko war a defee quoi waaw ñoom loolu lañ foog dañ jàpp ne yàlla mooy koo xam ne daal ni nga ko yégee rek noonu nga ko war a defee xoolal place boo xamante ne da nga fa war a dem war a jaamu yàlla toroxlu nga dem fanaan da ngay pooj loolu mooy noonu laa ko yégee rek waaw mooy ki ma leen doon wax démb moo doon wax yàlla xulli la tere waaye terewul xool xulli la tere mën ngaa xool waaye bul xulli mu ma doon wax loolu yal na yàlla jubal is jaala fiikum yàlla def na ci yéen ambiya ay yonent wa jaalakum mulukan yàlla def na ci yéen ay buur gis nga de li yëpp mbokk yi xéewal la bu yàlla subhanahu wa taala may banu israil malikina amra anfusikum anfusikum baada al istibaad al firawna lakum yàlla fekk na firawna di leen noggotu ku judd nekk góor firawna rey ko yàlla rey firawna delloo leen seen bopp ngeen am seen indépendance am liberté yàlla tànn ci yéen ay nit def leen ay personnalité kon loolu xéewal la yu ndaw ndaw yi nga xam ne sax yàlla subhanahu wa taala nit waru ko fàtte bal yàlla fàttali na leen ko pour ñu war a sant yàlla waaw moo tax Sénégal ñaata million lañ ah 14 millions 14 millions bu la yàlla defee président tànn la yow kenn ci biir 14 war nga sant yàlla nga delloo yàlla njukkal wala ah ah 14 millions yooyu yàlla def la nga bokk ci ñi nga xam ne dañ koo gëm yow doo dem doo dem stade doo caaxaan bokkoo ci mbër yi yàlla di génn la ci biir mbër yi santal yàlla yàlla génn la ci biir rappeurs yi santal yàlla yàlla génn la ci disco yi santal yàlla yàlla génn la ci ñi kiris karas santal yàlla yàlla génn la ci ñi rasta seen bopp santal yàlla yàlla génn la ci ñi bënn seen nopp santal yàlla ndax ñooñu ay sénégalais lañ comme yow am waaye amaluñu yàlla njëriñ kon yow santal yàlla xam ne yàlla moo la baaxee nga sant ko waaw ay xéewal a ngi ci ñun kenn waru ko sëgg war a sant yàlla xoola bi nga commencé di jàng ñu yóbbu la jardin ba nga jógee fa dem élémentaire nga jóge fa dem collège jóge fa dem nga jóge fa dem nga jóge fa dem ba nga génn nga ñëw déposé ñu jël la nga liggéey sawaay nga jékki-jékki jënd kër jënd oto tabax takk soxna yow war nga sant yàlla wala war a sant yàlla boo santul yàlla rek da ngaa ñàkk jom bi nga nekkee jardin ñaata ñaata booy nga bokkaloon classe foofu am na fa ñoo xam ne ca jardin ba lañ yem seen njàng ca jardin ba demuñu sax élémentaire wala ba ngeen demee élémentaire ñaata nit nga bokkaloon classe am na ñoo xam ne egguñu CM2 bi nga demee collège am ñoo xam ne defuñu examen bi nga demee bac am ñoo xam ne eggaluñu bi nga demee université am na ñoo xam ne ca kàmb ga lañ dugg wala ñu cartouché jóge fa di jaay café Touba yow nga romb foofu nga dem ba ñëwaat nga nekk DG allahu akbar soo jógee ñëpp taxaw boo duggee ñëpp jóg taxaw yenn saa yi nga dugg gaa yëpp tóoj ah da nga koy gis fi gis waa ji ne tël rek ñëpp de ah ah war nga sant yàlla de war nga sant yàlla gaa yi dañ lay baleel yow dañ lay baleel sa bureau dañ la koy fompal sa siège bi dañ koy fomp oto bi dañ koy raxas oto bi dañ koy raxas wala kan mooy raxas oto bi xar yi ñi koy raxas ay nit lañ ko yow allahu akbar kon war nga sant yàlla nañuy seet li ñu yàlla defal ci ay xéewal ñu koy sant bu la yàlla defoon raxaskatu oto nag yow yaay raxas oto bi est-ce que raxas oto dafa bon mais am na lu ko gën ki ñuy raxasal oto bi ak kii raxas oto bi ku tane tilka rusul faddalna baaduhum ala baad ba ci yonente yi sax dañoo gënante ëppante ay martaba kon chaque jour ah day sant day sant yàlla yàlla nee na bu ngeen ma santee ma dolli leen Moussa fàttali na ñi leen yàlla defal fàttaliku leen xéewal yi yàlla def na leen ay yonent yàlla def na ci yéen ay buur wa aataakum yàlla jox na leen maa lam yu'ti ahadan min al alamin lu mu joxul kenn ci mbindeef yi yàlla defal na leen ko yéen waa banu israil waaw banu israil dox nañu ba mar naan yàlla ne Moussa jëlal sa yat wi nga dóor ko ci xeer wi boroom xam-xam yi nee nañ xeer boobu dawoon ak turéyam bi yéreem yi moom mooy xeer boobu moom la Moussa jël def ci saak saa yoo bëggee lijjante dara rek xeer boobu la koy lijjantee am na ñuy wax leneen lu dul lool banu Israël dox nañ ba mar naan ñu ne Moussa dañoo bëgg naan yàlla mu ne Moussa jëla sa yat bi nga dóor ko ci xeer bi xeer bi dina explosé ñoom ñoom ñu naan wadrib asaaka alxajar fan fajarat min husnata asarata aynan qad alima kullu unaasin mashrabahum yàlla leen kulu wasrabu min rizqillah wala taasaw fil ardi mufsidin keroog Moussa bi muy dem ak mbooloo mi mu àndaloon fukki kuréel ak ñaar lañ woon loolu noo ko déggee waxuma fukki mbooloo de ay xeet bu doon Sénégal la nga ne dafa ànd ak tukulóor yi ànd ak joolaa yi ànd ak séeréer yi ànd ak njaago yi ànd ak ànd ak ànd ak ba ñu nekk fukk ak ñaar ay xeet yu bokkul bi Moussa jëlee xeer bi dóor yat bi dóor ci xeer bi xeer bi dafa def fukki robinet ak ñaar yàlla mu ne xeet bu nekk nañu taxaw ci benn robinet naan bu kenn jaxasoo loolu xéewal wala du xéewal xiif nañ yàlla di leen wàccee lekk mu jóge aljanna ñuy lekk almanna wassalwa waaw saa yu heure lekk jotee rek taabal yi wàcc kaw asmaan gaa yi dóor ba gàtt affaire yi yéegaat waaye xam nga nit ku bon nit ku xamul taraanga mooy koo xam ne da nga kaa héberger sa kër nga toggal ko ginaar mu ndogu ba suur ah ba mu des nga ni ko dugalal bagage yi ci waañ wi mu dugg fa yàgg fa nga dugg fekk muy xooñ cin bi baa doola la mooy waa banu israil xoolal lekk di jóge aljanna ñuy lekk guddeeg bëccëg ñu toog ba mu yàgg ñu ne yàlla plat bii nga ñuy jox daf ñoo soof guddeeg bëccëg mën naag salwaa sonn nañu indil ñu leneen waaw yàlla may nu leneen bëggatuñu lii waaw indil ñu loo xam ne ci suuf si lay saxee lan nasbir ala taamin wahid fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitu l ard min baqliha wa qisa'iha wa fumiha wa adasiha yàlla ne leen atastabdiluna al adna billazi huwa xayr aca ihbitu misr fa inna lakum ma sa'altum fa duribat alayhim zilla wal maskana wa baa'u bi ghadabin min allah wala rek mooy mooy li ngay gis léegi ci kër yi nga gis xale bu góor boo xam ne moom ba mu juddoo ba léegi paa bee koy dundal waaw waaw ba mu juddoo ba léegi du dimbali musul dimbali papa ji ci dépasse bi jékki-jékki naan waa paa bi man dama jaaxle quoi guddi mais paa bi guddi mbaxal rek lay lañ toogul quoi mbaxal kër gi guddi mbaxal rek yow mbaxal mi da nga xam nu mbaxaloo yow kay mbaxal mi fexeel nga dugal ci jimbo bi mu sax jëndal jimbo bi yeex na mbaxal mi ñuy togg soo ci yokkee li ngay reere ji ca may ga ba mbaxal mi dina changé booy yu bari fii dañuy mbëkk rido bàyyi seen papa yi di reere fondé daa ngi ree ci suuf de ma ne gaa yu bari fii dañuy mbëkk rido bàyyi seen papa mu reere fondé est-ce que loolu normal na normalul yow paa bi allahu akbar xoolal rek li muy dag darti darti ah boobu ba léegi muy indi ngay lekk xoolal bi nga nekkee xale est-ce que paa bi daf lay daf la fay bàyyi dem mbëkk rido ah ndeysaan ndeysaan gis paa boo xam dafa liggéey ba sonn 1000 francs la am mu ñëw ne jabar yi ah 1000 francs moo fi nekk de kon nag yi seetal rek yaa xale yi lu ngeen lekk seetal rek yaa xale yi lu ngeen def yenn saa yi julli jot ndeysaan nga gis paa bi benn benn tissu lañ ko may mu ñëw ne ah garaaw ñawalal xale rek man mun naa fóot mun naa redoubler quoi utal ma sama mbasin bële rek yenn saa gis paa bu jullee mbasin ñetti at maraakiis yi moom kenn waxatu ko ndeysaan dama dem benn dëj ñu toog nii rek benn paane paa yi di waxtaan benn paane man sama doom sama doom moo gën a bon ci doom yi daalu 40 000 lay sol loolu am na tey ci jeunes yi ku sol daalu 40 000 waaye sa papa muy lekkee cax sa papa yow bi nga nekkee lii est-ce que sa papa da doon sol daalu 40 000 ñun ñii ñëpp suñu papa yi daawuñu sol daalu 40 000 tey rek nga gis ko sol daalu 40 000 tubé yu ñaam portable ah chemise u chemise rek sama chemise bi 200 000 la jar cap cap cap cap rek cap 100 000 montre kenn ah bëgg ñu ne sawaay sawaay sawaay sawaay boo demee seen kër guddi ñi cere la ñuy jënd ñi fonde ñi meew la ñuy jël def ci mbiskit te loolu jaadu na ah tey laa mujj a wax ak benn xale tey hôpital Dantec laa taxaw ci digg hôpital bi boo ko téléphone foo nekk maa ngi nii suñu kër maa ngi nii sama kër est ce xam nga ne sa yaay dafa hospitalisé waaw xam naa ko kay est ce que jënd nga ordonnance am na lu ma yaakaar ma ne ko bés bu dee boo fi indee nag nag bi kenn du ko fa rey ci dëj bi daal di koy coupé wala ngay liggéey nekk ci état munoo jëndal sa yaay ordonnance munoo jëndal sa yaay ordonnance te ngay liggéey weer bu dee nga am salaire len defe ne loolu jaadu na te loolu diine la ah te bu benn xale bu jigéen feebaroon léegi ñu woo la téléphone nga luwe 4-4 di wane ne da ngaa baax moo tax ku ci joxul sa papa ak saa yi mu lekk xale jigéen dañ ko lekk ba mu jeex saa yi wàcc ñu ne la eh dibi laa bëgg dibi nga jëndi dibi ñu ne la coca cola nga pare ñu ne la nañ dem kër ga ataaya ñu ataaya pare ñu ne nañ meew bala ñu lay bàyyi nga ne mais wecc bi ma la joxoon desut ñu ne la desut de fi dara desut te garaawul quoi suba dinaa ko góolu nga dox ñeenti kilomètre ñibbi waaw eccet bi yëpp ñu tëdd ci ñoom bu ñu xëyee ndéggee ko yow nga xëy di la paas li ma leen di wax xam ngeen ne dëgg la waaw ku bàyyi ak sa papa ak sa yaay dundaloo leen xale yi jigéen ñi dañ la la lekk ba nga jax tàkk waaw waaw te doo ci am tiyaaba nag ah doo ci am tiyaaba moo xale bi gëm naan moo lekk leen day jaay ne moo dafa baax bàyyi leen ba mu ñëw waaye ñu ne jëndal dibi dañoo xiif te nag ni ñu baadoo la dañuy invité juróomi nit xam nga loolu moom doo jënd 1000 francs nga dem génne sa 15000 yi nga yaakaaroon ne ñetti fan yi jënd ko dibi nga pare ñu ne nañ ataaya toog leen bu kenn ñibbi dañuy ataaya nga pare ñu ne nañ meew heure ñibbi jot na nga naan waa mais ayda nday kumba weccet bi desul ñu ne la dara desu fi affaire bi sax dañoo leb suukar si te suba boo ñëwee yaay fayan kon mbokk yi nit na toppatoo ndeyam ak baayam au lieu que nga am di di galo yaabe fële ci àll bi sa ndey ak sa baay ngi nii saa yoo wàccee ah ndeysaan benn cheikh ndeysaan moo ci wane dars bu garaaw dafay def conférence ñëpp toog di ko xaar mu yegg si ci heure bi toog bi mu ne inna alhamdulillah portable lu sonné mu jël wuyu daan ne naam naam daal di raccroché daan ne ñi may defal con- conférence sama yaay moo ma woo du ma mën a def conférence bi sama yaay moo ma woo mu dem conférence bi tas ñëpp ñibbi sama yaay moo ma woo ndeysaan waaye nit day fonk yaayam nit day fonk way juróom est-ce que xam ngeen ne ndeysaan bi nga juddoo ñaata weer nga toog ci biir néeg bi jooy tëdd munoo dara am ku lay sang di la jox ngay lekk di la jox nga naan sa yaay nekk ci kër gi sa papa di daw lu ñu am indi lu ñu am indi ordonnance yi takar naas sa yaay bu xëyee boot buy taw sax bu fekkoon ne presol la yor nan lay def parasol bi ci yow la ko moom boppam la koy tiimale wala yow la koy tiimale ah kenn ci ñun fii bu papaam amoon ñaar dërëm nga xëy ndékki woo paa bi cent franc la yor te yow ndékkee goo paa bi day ndékki wala yow yaay ndékki damay laaj ma ne kenn ci ñun bu papaam xëyoon yor cent franc ndékkeegu leen nga ñëw taxaw ne papa ndékkeegu ma mu ne la man tamit ndékkeegu ma mais cent franc laa yor cent franc yooyu nu mu koy def yow la koy jox nga dem ndékki ji moom mu toog bu añ jotoon mu leer ko ne da ngaa génn yaa ngi ñëw te naroo añ li mu yor daf koy denc su reer jotoon ñu indil ko benn nen mu leer ko ne yaa ngi ni ci biir néeg bi reeragoo te da ngaa nar a tëdd nen boobu daf la koy jox ne la lekk ko nga dem tëddi nga naan ndox dem tëddi moom mu daal di toog journée bi yëpp lekk ko est-ce que ku mel nii ci sa dund war ngaa am yow di ko daw war ngaa am fàtte ko xoolal léegi nit ñi nit ñi def ku am toxu ku am rek toxu toxu gars yi buñ jàngee ba pare dañu nomee leen ay DG dañuy toxu ay ñëw papa bon gàlle bi ma doon tabax pare na quoi ma préféré toxu parce que sama copain yi xam nga fii dafa bëri biir wi fii dafa bëri biir yu quoi parce que banlieue la te man liggéey bi may liggéey dafa laaj may nelaw quoi man nelaw ah tey nga xam ne kër gi daa bëri biir yu ah tey tey nga ko xam yow biir wi yaa ko jiite woon parce que xam nga ne yaa jiite woon biir yi ci kër gi laa ilaha illa xoolal kuy wax loolu papaam non man mënatuma dëkk fii quoi mënatuma dëkk ak yéen te ñoom ñu dëkk ak yow ba nga toll nii gars yi nañ leen seetaat suñu bopp am yoo xam ne duñ dem dañuy sonn parce que diine santaanewul loolu suñu borom ne leen yàlla may na leen loo xam ne mayul kenn wa ataakum ma lam yuuta ahad min al alamin mbokk yi yàlla may na loo xam ne mayu ko kenn soo juddoo am ndey ak baay nga juddu ci ñoom kenn foru la ci mbedd mi juddu woon ne yaay ana sama pap mu ne gaa yi ñooy sa papa gaa yi gaa yi gaa yi ñu doon toog ci mbaar mee loolu ku ko sa yaay waxu rek war nga sant yàlla waaw nga fonk ko papa an sama yaay mu ne la mi ngi nii nga sant yàlla waaw ñu encadré la lu nga xëy tekki sotti kon fexeel nga delloo mbàtt mi ci ndaal yi yaa qawmi yéen samay nit udxulul ardal muqaddasa dugg leen dëkk bu tedd bii bu ñu laabal muy Palestine dugg leen ci dëkk bi yàlla moo farataal ci yéen ngeen dugg ci ngeen dëkk fa ginnaaw ba yàlla dàqee gaa yooyu ñu tuddee jabbarin bandi yu bon yooyu suñu dars passé waxoon nañ leen ko yonent yàlla Moussa tànnoon na ay nit ne leen dem leen ngeen yëddu ji gaa yooyu ñooy ñan waaye ban demee ñaar ñoo ci mujj def seen liggéey ñeneen ñëpp dañoo mujj trahir daal di war yonent yàlla Moussa mbokki jullit yi yàlla subhanahu wa taala wax na ne Moussa nee na gaayam yi dugg leen dëkk bu tedd bii ngeen dëkk fa ngeen am fa dal na ngeen jaar ci buntu dëkk bi bu ngeen di dugg waaw waaye banu Israël seen dëgër bopp seen wawle keroog ba ñuy dugg ca dëkk ba lànk sax lañ njëkkoon def ne duñ fi dugg lànk ne ñun duñ fi dugg fekk gaa yaa ngi fi am na ñoo xam ne dañoo dugg ci dëkk ba di dargu te yàlla da leen ne wadduxulul baaba sujjadan su ngeen dugg sujjóot leen ñu daal di dugg naan xitta te yàlla waxoon na bu ngeen duggee ngeen jaar ci porte bi naghfir lakum xataayaakum dinaa leen jéggal seeni bàkkaar ñu daal di dugg di darngu naan xabatun fi saar ñooñu sax ñoo tane waaye ñeneen ñoom dañoo lànk ne ñun duñ fa dugg feek kanaani yiin yi ñun fa ñun duñ fa dugg te yàlla waxoon na buñ fa duggee dañ fay dëkk dañ fay am dal loolu la leen yàlla waxoon waaye borom bi subhanahu wa taala mu ne ñu lànk changé leneen li leen yàlla waxoon ñu dem defi leneen dëkk bi nga xam ne allati kataballahu lakum yàlla farataal ci yéen ngeen dugg ko wala tartaddu bu leen murtat bu leen deltu ginnaaw ala adbaarikum mukk bu leen ko def bu leen deltu ginnaaw la tarji'u ala adbaarikum bu leen ko def bu leen deltu ginnaaw waa bu leen reculer ngay avancer ba ci à nga deltu ginnaaw yàlla mu ne leen avancer leen bu leen arrière bu leen deltu ginnaaw dugg leen rek dem leen bis bu ngeen duggee deltu ginnaaw lan moo leen di dal mooy fa tanqalibu xaasiriin da ngeen di dellu nekk ñu perte lépp lu ngeen amoon ci tiyaaba da ngeen koy perte waaw da ngeen di torox ñu daal di lànk bañ a déggal yàlla wala tarjiu ilal wara bu leen deltu ginnaaw su ngeen ko defee munhazimiina dañ leen di gañee te buñ leen gañee fa tanqalibu bi zalika xaasirin di ngeen dellu ci loolu nekk perte waaw ndax yàlla moo leen digal jihaad na ngeen dem ngeen xeex ak ñooñu ngeen génne leen dëkk ba yéen ngeen dëkk fa mooy dëkk bu sell boobu di Jérusalem muy baytul maqdis dugg leen ko ànd leen ak sama yonent bi muy Moussa Moussa ne leen kaay leen dem ñu ne ko izhab anta wa rabbuka fa qaatila demal nga ànd ak sa boroom ngeen xeexi ñun xeexuñu de inna hahuna qaidun ñoo ngi toog fii di leen xaar loolu la ñu waxoon yonent yàlla Moussa ne ko ñun xeexi wuñ Moussa ne leen lan mooy lay luy preuve bu luy wane ne yéen da ngeen di lànk du ngeen xeexi qaalu ya Moussa inna fiha qawman jabbarin ñu ne Moussa ii foofu ay ponkal ñoo fa nekk ay ponkal mooy jabbarin ay nit ñoo xam ne moom la gaa yi naan Goliath ah ñun ñu ngand ñooñu ñooñu ñoo fa nekkoon yàlla ne leen dem leen ngeen xeex ngeen ñooñu dañoo ngand rek amuñu benn njëriñ la baasa min qawmin bi tuulin wala qasarin jismil biraali ka aqlaamil asafir xam nga nit ku ngande comme ñey waaye xelu picc la yor kooku amul njëriñ qaalu ñu ne yaa Muusa yow Muusa gis nga lii borom xam-xam yi di wax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam amul fu ko yàlla sàllalu ci alquran wala Moussa direct ngay dégg ñu ne yaa Moussa wala ñu ne Moussa est-ce que yaa muhammad am na ci alquran damay laaj yéen ñi mokkal alxuraan nekk ci biir jumaa ji ndax yaa muhammad am na ci alxuraan yàlla sàllalul muhammad benn yoon looy fekk yaa ayyuhan nabi gis nga eh yow sama yonent même yàlla fi mu wax muhammad sàllalu ko de lu mu ci teg muhammadur rasulullah ndeysaan ndax bëgg bi mu ko bëgg lu mu koy wax illa rasul chaque jour da ngay gis yàlla teg ci dara mais comme nii rek Moussa xoola ñii lu ñu wax yaa Moussa ak a bëri ci alquran yaa Nuux yaa Zakariya yaa ak a bëri waaye kenn du gis ci alquran yaa Muhammad ndax yàlla daf ko wekk yàlla daf ko jox respect yàlla daf ko jox cër yàlla daf ko ormaal ba pare ñun ormaaluñ ko ku yàlla ormaal ñun ormaaluñ ko waaw ku yàlla ormaal yow nga ne jullit nga mais doo ko ormaal allahu akbar ku ormaal ci ñun yonent bi rek da ngay nangu dund sunna yonent bi loolu mooy wane na yow ormaal nga ko yow bëgg nga ko léeg-léeg nga dégg ñu ne benn jullit yonent bi nee na mu ne mais mais mais mais waaye nag mais paa bi quoi mère bi quoi non gàlle bi quoi ah bon gàlle beeg mère beeg paa bi moo tax bëggoo dund sunna yonent bi léegi yow nga ni ormal nga yonent bi kon nañ sa seetaat ñooñu sax ñooñu ñu baax ñi ñeneen ñi moom dañ naan déedéet ñun am na leneen luñ ñu wax wa qaalu ñu ne yaa Muusa yow Muusa inna fiiha nekk na ci dëkk ba xawman ay nit ñoo xam ne jabbaariin ay ponkal lañu ñun ñii mënuñoo xeex ak ñoom ndax ñooñu ñooñu ëpp aqwiyaul abdaan seen yaram ya dañoo ngande ñun bu ñu jamee ñooñu dañ ñuy lekk wa inna lan nadxulaha ñun de dunu dugg dëkk bi mukk abadan hatta yaxruju minha ba ñoom ñu génn ca dëkk ba waaw fa in yaxruju ñoom bu ñu génnee minha ci dëkk bi fa inna ñun daaxilu nañu doog a dugg kon kay jihaad bi dootul amati njëriñ demal nga xeexee kii nga génne ko nga ñëw yërndu bunt bi sawaay gis waa ji xejul ci bunt bi ndax punkal nga dellu daw nga bàyyi ba waa ji génn nga ñëw di sibile ci biir kër gi loolu kay du ndam dëgg-dëgg victoire bi kay mooy kii ñu la wax demal nga xeexi jéeg moom nga dem xeexi jéeg moom kii ñu la demal nga génne ko dëkk bi demal nga génne ko nga dem génne ko waaye boo bàyyee ba jaan bi romb ah sa waaye nga jël sa jaas yi di dóor ci watit bi ndax loolu njàmbaare la loolu la waa banu Israil def te yàlla moom bu la joxee ndigal waratoo toog di xaar ndigal yàlla jëfe dinaay dégg Sénégal benn baat ak a neex bu fekkoon ne ci yàlla la jëm ndigal dinaa koy dégg trop sax ñu koy wax waaw ñu ne ndigal jëfe rek wallahi loolu dëgg la waaye ak a neexoon ñu ne ndigal googu yàlla joxe jëfe da ngay gis ku yàlla sant mu lànk nit sant ko mu def wala léegi santaane yàlla ak santaane nit ban mooy ban mooy priorité ban moo gën a yey bu yàlla ne def leen nit ne def leen ban moo gën a yey bu yàlla ne bàyyi leen nit ne bàyyi leen bu gën a yey yonent bi nee na laa taata li maxluqin fi maasiyatil xaaliq yonent bi nee na innama taatu fi lmaaruf yonent bi nee na kenn du topp mbindeef ci lu neexul yàlla kenn du topp nit ci lu neexul yàlla nga am soxna weeru koor jot nga ne ko bul woor mu bañ a woor ñu ne ko lu tax wooro mu ne sama borom kër moo ne bu ma woor kon du ma woor ndax mooy sama kilif est-ce que loolu jaadu na soo amoon sa soxna nga ne ko bul woor lu mu war a def woor ba nga wàcc da ngaa woor mu ne waaw waxuma la woon bul woor mu ne ko yemal yemal dama bëgg nga yem waaw yàlla bu waxee kenn du laaj ci ndigal imam ahmad nee na isa qala allah wa rasul fa bil ayni wa raas yàlla bu nee def def rek la su ne bàyyi leen bàyyi leen su yàlla nee def leen ku deful am nga bàkkaar boo dajeeg yàlla di nga xam bu yàlla ne bàyyi leen ñëpp war a bàyyi ku ku bi yàlla ne sujjootal leen aadama am na ku ci jëlee njëriñ wala am na ku ci perte am na ñu ci jëlee njëriñ am na ñu ci perte ñi déggaloon yàlla bi yàlla ne sujjootal leen aadama ñuy sujjoot dañ cee jëlee njëriñ ki lankaloon yàlla dafa perte yow mi dégg yàlla ne woor leen nga bañ yëgal na yàlla santaaneem ku ko bañ a def rek da ngay perte ëllëg yowmal xiyaam wallahi gars yi danañ dee gëm ngeen ko ah dinañu dee laa wax gëm ngeen loolu bu nu deewee danañ dékki gëm ngeen loolu bu nu dekkee danañ taxaw ci kanam yàlla gëm ngeen loolu bu nu taxawee ci kanam yàlla yàlla danañ fay gëm ngeen loolu ku baaxal ci ñun yàlla fay la ku bonal ci ñun yàlla fay la kon nag dara jaru fi yàlla sant la nga bañ dara jaru fi te dund gii ñuy dund yàggul walaw ista alf amin wa alfayni baadahu fala budda yowman tadxulul qabr su ma tàmbali woon ndey joor ci biir jàkka ji di laaj kenn ku nekk ñaata at nga bëgg a dund ñaata at nga bëgg a dund yow waxal ñu dem mu ne téeméer ñu continuer ay kii ne junni kii ne ñetti junni balaa ñu yegg si fii kii ne fukki junni at laa bëgg a dund après fukki junni at yooyu bu jeexee lu ci tegu dee dee rek ndeysaan yonent yàlla nuux aadama aadama yonent yàlla aadama bi deem jotee yàlla mu ne malakal mawti dama nga rey aadama malakal mawti ñëw rek aadama ne yàlla man dese naa quarante quarante ans de yàlla mu ne da ngaa fàtte yaa ma yoon Idrissa sa quarante ans yi aadama bu ko nangu walaqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya adama daa maye ci atam 40 ans deem war a jot ñi ñëw ne ko da ngay dee mu ne yàlla dese naa ñeen fukki at yàlla ne ko sa ñeen fukki at yooyu maye woon nga ko adama rek bi mu wàccee ci kaw asamaan ñëw fii ci suuf toog na ñetti téeméeri at xoolul kaw asamaan te balaa loolu dund na àjjana ñaataat bi mu ñëwee ci kaw suuf toog na ñetti téeméeri at xoolul kaw asamaan ndax rus yàlla benn bàkkaar la def mu rus yàlla ñun ñaata lañ am ñun ñu nekk ci biir jumaa ji ñaata bàkkaar lañ am xanaa minimum boog mën na juróom ah juróom tuuti na aadama moom benn rek la def benn benn benn bul jege garab gi mu dem lekk yàlla wàcc ko iblis benn bàkkaar la am iblis benn bàkkaar la am mooy lan sujjóotal mu bañ fu ñuy dóore ko am benn bu fa borom fukk teewee foo jëm waa ji dañ koy dóor parce que benn dégât la def yow nga ñëw def 10 dégâts kon yow lu ñu la war a def kon gars yi loolu tax ñu war a góorgóorlu li ñu bëgg a jàngalee wane ko mooy santaane yàlla def rek ñii yàllaa leen jox ndugal ne leen ndigal ne leen def leen acca waaye ñoom ñu ne mënuñu koo def c'est parce que inna fiha qawman jabbarin ay ponkal ñoo fa nekk ñun ñemewuñ leen mënuñu xeex ak moom ñoom ay bombardier ñoo fa nekk waaw ñun de duñ fa dugg waaw wa inna ñun ñii lan nadxulaha duñ fa dugg mukk hatta yaxruju minha ba ñoom ñii ñu génn fa in yaxruju minha ñoom buñ fa génnee fa inna ñun ñii daaxiluuna danañ dugg nag borom bi nee na qaala wax na rajulaani ñaari nit ñaari nit ñooñu dañoo bokk min allazina ca gaay nga xam ne yaxaafuuna dañoo ragal an ama allahu alayhima xéewal gi yàlla defal ci ñoom ñaar ndeysaan an ama allahu alayhima bi ni'matil isma haythu lam yafsu sharra ma sahidu jàngaloon naa leen ñaar ñi mooy ñaar ñi ñoom ñoo bokk ci ñan isna asara naxiib ya fukki nit ak ñaar ña demoon doon espionné ji gis ponkal yi ni ñu toll ñu xam ne buñ joxee information bi population bi danañ découragé ñoom ñëwuñu biñ ñëwee ñoom dañoo noppi tëj seen gémmiñ joxewuñ benn ab waaye ñeneen ñi dañoo ñëw ne wër na yàlla Moussa dafa dof ngandu nit ñoo fa nekk bu ngeen di dem di dee moom mooy ñaar ñi yàlla naan rajulaani ndeysaan ñi ñoo tasul secret moo tax nekkul ne nit lu mu xam rek mu wax ko nekkul ne loo gis rek nga nettali ko waaw nekkul ne loo gis nga nettali surtout nag ci loo xam ne dafay yàq kër gi dina ma jaaxal trop léeg-léeg ma jékki-jékki dégg émission boobu tudd tës ku fa yóbbu papaam naan sama papa wala ku fa yóbbu jëkkëram mais man dama jàpp ne yow jigéen wala yow góor boo yóbbee ci sa sa jëkkër wala sa jabar wala sa papa wala sa yaay wala mais da nga koy yóbbu ba pare nga ñëwaat ci kër gi añ ak moom sa jabar daf la yóbbu tës ba pare ci rajo bi mu wax ni nga mel ba pare après mu ñëwaat ngeen bokk añ mu ñëwaat ngeen bokk continuer di dund abadan xanaa xamuloo même ci sëy sa jëkkër bu taxawee mu waat nga waat après seen sëy tas na billahi wallahi da nga doon njaaloo mu ne billahi wallahi wa taala njaaloo ma sëy bi tas na keneen kay moo lay takkaat waaye moom pare nga au moins nag léeg-léeg nga yóbbu nga yóbbu sa jëkkër ci rajo bi weer ko am ngeen téeméeri doom wala nga yóbbu sa papa ci rajo bi weer ko wala nga yóbbu sa yaay loolu nu ko nit di defee ana sutura soo waxee ñu ne suturaa fi jeex ah parce que du ñu ay jullit ay jullit moom day am sutura ñii nii information bi ñu joxe moo leen alal yonent yàlla Moussa waxoon na leen dem leen ngeen xooli dëkk ba ngeen espionné dugg ci dëkk bi ngeen xool nekk fa ay fan tasaaroo leen fa ba ngeen jàng dëkk ba nu mel dañuy xeex ak ñoom ñu xool fan lañ leen di jaar pour gañe leen ñoom daal biñ nee tëll ñu gis ponkalu nit sa waay seen gars yi seen doole yi tuuti mu laal asamaan am na ci gars yoo xam ne dañoo ngand ba bu ñuy tëdd seen benn nopp la ñuy lal sàngoo beneen nopp bi gars yi ne ah gis nga buñ demee nan wax nit ña dëgg ñun mënuñu xeex ak ñii waaye ñoom dañoo def erreur kan moo leen yónni ci mission kan lañ nekk waaw ab yónent boo xam ne yàllaa ko yónni ci mission yàlla nga nekk kon yàlla ngay liggéeyal soo demee loo mënta gis soo ñëwee noppil waxal ak yonent boobu jox information noppi léegi nag ñoom bi ñëwee dañoo tasaare xabaar bi ci biir dëkk bi ba mu des ñaari nit ñooñu dong ñoo ñoo waxul lañ gis ñaari nit ñaar ñi ñoom la yàlla defal xéewal an'ama allahu alayhima ñoom la yàlla xéewalal fa asamahuma xéewal gi mooy lan yàlla leen musal min ifsa i sirri tasaare wu ñu sekkere ba maa raaw la ñu gis min quwatil kanaani yiin ci dooley waa kanaan yi ba ñu noppee gis nga yàlla subhanahu wa taala ba muy mbugal waa dëkk ba ba muy mbugal ñi àndoon ak Moussa bani Israil ñaar ñii yàlla def leen cee sette moom ñoom ñaar la yàlla di wax nii qaala rajulaani min allazina yaxaafuuna anama allahu alayhima bal ñooñu sax dañoo renforcer Moussa ñooñu communication bu ñu joxe mooy lan pour gaa yi xeex yi dañu ne udxulu alayhimul baaba su ngeen di dugg jëm ci ñoom jaar leen ca porte ba waaw su ngeen bëggee gañee ngeen di xeexeeg ñii ah te mooy ponkal yii jaar leen ca buntu ba su ngeen jaaree ca buntu ba yàlla dina leen dimbali waaw buntu dëkk ba ay baabul madina buntu dëkk ba fa iza daxaltumuhu su leen yàlla dimbalee ba ngeen jaar ca buntu dëkk ba fa innakum yéen ñii kon xaalibuuna yéenay gañe mbokk yi dëgg dëgg dëgg koñ yi ngeen dëkk mbër yi nekk fa mbër yooyu bu ñuy bëre ji su leen sëriñ bi ne bu leen jaar ci bunt bi mbër yi fu ñuy jaar mbër bi bëre ji sëriñ bi ne ko bul jaar ci bunt bi fu muy jaar day tëb day tëb miir bi wala bul jaar ci buntu ndeyjoor bi jaaral buntu càmmoñ même sax waxuma la mbër yi nawetaan rek nawetaan da ngay gis oto oto bi ñëw ba ci gaara ci buntu esaat bi ñu ne leen jaar leen ni ñu ne première équipe bi fu mu jaar ñu ne fii ñu ne ñun duñ fi jaar ubbil leen ñu beneen porte bi rawatina nag ñoo xam ne ab yonent moo leen jox information ne leen ñi ngeen di xeexal su ngeen leen bëggee gañe jaar leen ci buntu dëkk bi loolu doyul loolu doy na gars yi wala doyul waaye ñu lànk ne ñoom duñ jaar ci buntu dëkk ba ndax liñ jot a gis ay ponkal lañ gis ñooñu dañoo ngande ndeysaan te yàlla waxoon na leen bu ngeen duggee bu ngeen jaaree ca buntu dëkk ba yéen yéenay gañe waaye doy na ci li leen yàlla jox pour tegtal yàlla ne wa alallahi ci yàlla fa tawakkalu na ngeen wàkkiirlu allahu akbar ab jullit wallahi dafay wàkkiirlu ci yàlla wa alallahi fa tawakkalu jullit na wàkkiirlu ci yàlla fii ngay gis jullit boo xam ne ci ay béjjén ay kànnaar ay xaaw ay petaaw ay lam lam yu ñuul yi tukulóor yi nee nañ so allah du ina nafan no ummataa koye hoore joomum on nani on pulaar allah du so tawino ina nafa ummataa koye hoore joomum béjjén bu doon dina jëriñ du jóge ci bopp bi boppu borom ana xarma ah ana xarma dee na rey nañ ko ana yàpp ba lekk nañ ko ana yax ya seeñu nañ ko ana der ba daaj nga ko di ko jullee ba pare nga takk béjjén bi naan ku ma laal dee nga loolu mooy yow da ngaa dof saa nga daje ku takk béjjén waaye waaye laaj koon béjjén bi ci ana bopp ba mu nekkoon saa nga dugg kër gis ngandu béjjén ci bunt bi waaw yenn saa yi sàcc bi sàcc ba pare daa tekki béjjén bi tegal leen ko ci buntu saal bi waaw ne leen waaw sàcc ba pare daa tekki bu gaaw gàllaaj yi tekki ko nag daal leen koy tegal foofu bu wal leen ne tus li du dara ngeen naan day garder kër gi jullit dafay wàkkiirlu ci yàlla waalallahi fa tawakkalu in kuntum muminin bu dee gëm ngeen yi gis nga charte bi yàlla teg ci aaya bi na ngeen wàkkiirlu ci yàlla bu fekkente ne ay jullit ngeen in boobu charte la su fekkente ne jullit nga kon loolu lu muy tekki mooy amoo droit di wàkkiirlu ci béjjén wala ci ay nit dañu takk ay ay lam lam yu ñuul da ngay gis kenn ku takk lam bu ñuul soo ko nee lan la mu ne cat cat laay bañ yow kay ba nga ko takkee la la cat topp cat laay nga ko takkee la la cat topp jullit du takk gàllaaj ñu waxaat ko dégg ngeen jullit ci yàlla lay wàkkiirlu da ngay dégg yow doo takk doo sangu doo naan ñu ne waa ñu ne yow da ngay xaru rek xanaa xamoo ku dul gàllaaj ku dul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf loolu ngay dégg fi ku xar ku takkul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf déedéet dañ le ne bul takk bul naan bul sangu wala ñu ne la bul takk waaye mën nga naan mën nga sangu waaye da ngay wàkkilu ci yàlla ñaata nit ngeen gis ñu dee ñi ngeeg ay gàllaaj ñaata ñaata ñaata nit mbokk yi ngeen gis ay gàllaaj ñu takk su ngeen di xool youtube bi accident yi ñi ci ëpp da ngay gis chauffeur yaag gars yi ñi ngi takk ay ndomba ba ay béjjën yu kenn xamut te saa yoo takkee gàllaaj sa xel dootul dem ci yàlla waaw maa ngi ak sama portable benn waay boo xamante ne li mu takk ci gàllaaj fees na scooter de mun ñemewu maa wax oto moom waaye fees na scooter moom gàllaaj yi waa ji takk fees na scooter léegi nag naka ngay takkee loolu pare bëgg a nekk jullit ah nga bëgg a taxaw ci kanam yàlla naan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ah te yàlla dana doon wàkkirlu ci man yow nga dem wàkkirlu ci ay gàll ay gàllaaj ay ndomb ay béjjén ay xaaw ay petaaw ay lam yu ñuul ay kànnaar nga takk ba ne gaj waaw waa ji dafa takk fii ba fii loxo yi tamit dafa takk tànk yi daa takk waaye ndigg li moom li mu ci takk fees na scooter ba pare loolu nga ne yow léegi ab jullit nga naka la ab jullit di defee loolu bàyyi yàlla soo ne jullit yi tey wàkkiru leen ci yàlla ñu ne ah yàlla kese kese kese dafa rittax waaw il faut yàlla ak yàlla ak ak yàlla ak lan moo tax kuy wax bu neexee yàlla ak benn waaye accidenté na ñu dem seeti ko ndeysaan du ma ko fàtte mukk loolu sama dund seeti ko këram fekk génn na gis ngeen waaje ah gis ngeen ko de ah xool leen lii lii la ilaha illa gisu leen ko yaakaar na xama yokkaat ko kii xam nga téere desul ci Sénégal téere la takk xoolal lii rek ana yàlla xoola caaya jeeg semis bi diggante caaya jeeg semis bi lépp la tàkk daanaka semis bi doo ci gis dara ah lii diine la lii soo ne kii lu tax nga def lii mu ne la yàlla déet yàlla nee na boo ma gëmee wàkkirlul ci man yonent yi yan téere lañ daan tàkk yonent yàlla Moussa ba muy traversé géej gi ban téere la takkoon inna ma'i rabbi yonent yàlla Moussa Muhammad ba muy dugg ci xaaru xiraa ñoom Abu Jahlil ñëw nga xam ne neexale nañ ku ko indi muy dund wala mu dee dinañ la jox téeméeri gëléem lan la wax gaa yi lan la wax Aboubacar keroog ci biir xeer bi inna allaha maana yàllaa ngi ànd ak ñun léeg-léeg ma gis ba aaya boobu ñu bind ko ci oto inna allaha maana ma xool baar bi gis ci ngandum ndomba ma ni aaya bi du dëgg waaw kii li mu wax du dëgg gëmu ko su gëmoon ne inna allaha maana du takkal oto bi gàllaaj waxuma la fii dañuy takk gàllaaj ñun waaye dañuy takkal kër gi gàllaaj takkal doom yi gàllaaj takkal xar yi gàllaaj ana yàlla jullit du takk gàllaaj mbokk yi ci aaya bi yàlla naan fa tawakkalu in kuntum muminin di ko wax waa banu israil dem leen ngeen xeexi ñii li ñuy ngande ngande jaar leen ci bunt bi wàkkiirlu leen ci yàlla loolu la ab jullit de ab jullit dee wàkkiirlu ci yàlla ci aaya bi la ñuy taxaw ba suba insha allah yal na yàlla may ñu fekk asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu